aca arbitre ba sifflé na combat ba Saaku Ciment ak Fils de Cobra ñoom ñaar ña ngay léewtoo ña ngay léewtoo Fils de Cobra moo ñu woon ginnaaw Saaku Ciment dóor na doxaat na ci kawam Fils de Cobra ngay dellu ginnaaw Saaku Ciment koy topp Fils de Cobra dóor na daw na yooru xeex nañu ba génn saaku yi laa ilaaha illallah Fils de Cobra ngay calli calli arbitre na joxul kenn avertissement d'accord naa noonu la demee Fils de Cobra di dellu ginnaaw Fils de Cobra yooru na Sakhou Ciment Fils de Cobra daw na jël ko daw na jël ko Fils de Cobra na ko daan nañu ko daan nañu Fils de Cobra Sakhou Ciment daan na Fils daan na ko